ñu tàmbalee suñu nuyoo ci Cheikh Mountakha xalif général des mourides di ko ñaanal bi yàgg fi te wér di ko jaarale ci Serigne Abibulahi Mbacke mi toog di kilifa Touba ca kanam ak sëriñ Alaaji Serigne Takko Mbacke moom laa war a jiital sax moom mi nga xam ne mooy ambassadeur ak Serigne Abdoulahat moom Serigne ko waxee mu yóbbaale mboolem waa Touba ca kanam yépp ndax. Euh, kuréel la goo xam ne ñëpp a ko safoo ñëpp a ko bëgg ndax ñëpp dañ koo jàppe seen yëfi bopp kon liñ ci wax du gudd dañu jëm a dugg rek tuuti ci liggéey yi nga xam ne nekk nañ ci rawatina ci jamono yii nga xam ne ci màggal gi la mu mel ne ren am na lu màggal màggalu Touba feeñal rawatina ci digganteem ak Touba ca kanam li mu feeñal nag du lu bettee ndax euh, laata màggal gi ñëw ñëpp ñi nga xam ne dañuy xool ak natt xayma maase woon nañu wax ne màggal yi ñu jëm yépp ci nawet lay doon bettiwut waa Touba leen ndax bi ñuy natt ak yan liggéey war a def ci at mi waajaloon nañ bu baax a baax ne màggal gi ci biir nawet lay doon kon lépp luñ mën a def ba taxaw kar waajal ko ba man cee jàpp moom Touba ca kanam bàyyi woon na ko xel ci perspective yi nga xam ne defoon nañ ko ñetti pàcc yi nga xam ne moom la ci Touba ca kanam jël nag yëkkati cent cinquante million def ko ci bi njëkk mooy leeraay bi ak ñaari ndox yi mooy ndoxum taw ak ndoxum naan te jafe-jafe bi ëppee foofu rawatina ndoxum naan ndax ndoxum taw mi jafe-jafe bu rëy rëy la. waaye ndoxum naan mi moo ko gën a doon jafe-jafe tawféex ji ci am nag mooy jàpp nañu ne bu ñu génnee ci màggal gi moom faww ay taxawaay dana am ci ñaari ndox yooyu mooy ndoxum taw ak ndoxum naan ak lu mën a xew moom Touba Kanam dana ko bàyyi xel te dana ci def yitte dana ci taxaw ndax euh, mbir mu nekk fagaru dafay gën faju liggéeyu metti yi nga xam ne san yi Touba Ca Kanam moo ngi ci di fexe ba sécurité xàll yu mag yi ba oto yi ak nit ñi màggal si mën a am yoonu jaar ba man a agsi pexe yi nga xam ne ci la Touba nekk Touba ca kanam ci la nekk ba manque ndox mi ñu jëm cee liggéey ba métteetu manque ndox mi du metti yooyu yëpp yu solo yu Touba bi liggéey waaye nag ay pexe yi nëggandiku la wala ay pexe yi ñàkk pexe la pexe yi dëgg-dëgg mooy saafara ko te nañu ko war a saafara li koy saafara nag ñëpp wax nañ ko ñëpp xam nañ ko ndax euh, lu bari ci xalaatkat yi yoon wi ak ñi nga xam ne ay bindkat lañ ak waxtaankat yi yàgg nañoo wax ne yoon wi am na kattanu mën a yor boppam ñii di xalaat naan bu ñu fexe woon ba def nangam dajale nangam danañ am sol nangam boo xam ne luñ bëgg man ko cee def xalaat yu fi yàgg la mu mel ne xalaat yooyu nag. suñu boroom ci mbaaxu sëriñ bi xëy na xëy jëmmal ko muy Touba kanam waaye li ci xaw a yéeme tuuti te xëy na ba tey tawféex la mooy dafa bari ci ñi nga xam ne ñoo daan ni yanu yooyu di ci sonn di ci dox ngir ne nañu fexe ba yoon wi boole doole yi dajale alal yi defar ci yoon wi dafa bari ci ñoom ñoo xam ne bi Touba ca kanam juddoo taxaw doon jëmm dafa mel ne ñoom dañ cee téye seen loxo taxawee ne loolu nag ab laaj la boo xam ne dañ leen koy laaj ñoom ñi nga xam ne ñëpp yàgg nañoo wax ne yoon wi mat daa war a boole doole yi ngir saafara jafe-jafe yi jamono bu nekk dañ koy dégg bis bu set ba mbir gaaree rek doon problème ñi koy wax dañu naan yoon wi mën na koo lijjanti te léeg-léeg sax ñu koy waxee ci jamono boo xam ne bi ñuy wax yoon wi mën na koo lijjanti ki koy wax wóor na ko ne Touba ca kanam ci wetam te wóor na ko ne amagut xalaat walla kuréel gu gën a taxaw Touba ca kanam ndax wóor na ko ne mësta gis mësta gis. kuréel gu daanaka ci kaw suuf sax xaw naa ko mën a wax kuréel goo xam ne ni muy leeralee alal Touba àgg nañ ni àgg na ci ni ko Touba Ca Kanam yi defee waaye du tee danaan yoon wi day bu ñu góorgóorlu woon boole doole yi danañ mën a saafara jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy am te bi mu koy wax wóor na ko la Touba Ca Kanam ak ci wet gi waxu ko waaye loolu ba tey xëy na loolu day day taw tawféex mbooloo moo seen ñuy dem ak lu mu rafet rafet boo ko xoolee ca biir dañ ca gis yooyu xebet loolu ànd ak doxiinu àdduna ndax noonu la yàlla bindee àdduna àdduna lu parfait amu ci lu 100 pour cent amu ci ci biir loolu nag léeg-léeg xam gi Touba Ca Kanam yi xam ne bari na ñoo xam ne tey bu ñu takkatoo woon jàppaloo ay loxo yi Touba Ca Kanam bëgg dana ko am xam gi ñu xam loolu di jéem a lijjanti ba mën a am nga xam ne daf leen di doy yitte loolu dafay gën a bennale mbooloo Touba Ca Kanam mi nga xam ne ñoo ne ci biir liggéey bi di ko doxal ndax bu fekkonte ne lépp yemb na. lépp jaar naw yoon ñëpp ñëw nañ ci kuréel gi di jàpp man naa am matatik doomu aadama léeg-léeg mu gaar ñi yor kuréel gi di ci dox ba léeg-léeg seen diggante ay réeru di ci feeñ te loolu mën naa indi gàllankoor kon loolu xay na mooy xikkam bi tax mu demee noonu leneen li ma ciy dolliwaat mooy ci Touba ca kanam ci ngay xamee barkeelu génnee alal te yàlla rek tax génnee alal def ko ci liggéeyub Serigne Touba ak barkeelu liggéeyub Serigne Touba ci Touba ca kanam nga koy xamee. li tax ma koy xamee ci Touba kanam mooy ñun ñëpp dañuy dégg ñuy wax milliard milliard milliard dañ koy dégg bari na rawatina ci réew mi waaye darajay milliard ak kattanam ci Touba kanam nga koy xamee ndax lu tax mooy Touba ca kanam yëngu-yëngu yi bari na lool riir mi bari na waaye lii moom jot a jël lépp def ko ci liggéeyu sëriñ bi ci dëkk bi matagul milliard loolu li muy tekki kon mooy ndekete ñaari mbir lay feeñal bu njëkk bi mooy. milliard wala koppar mën na lu bari ci bu fekkente ne mi ngi ci loxo yu wóor loxo yu dëgg di ko saytu mën na lu bari li tax léeg-léeg lu bari mënta saafaraw rek ñaari mbir la mooy koppar yi dañ ko dul jëmale fa jëm cent pour cent li ñu wax fonctionnement bu ñu xoolee service yu bari wala structure yu bari li leen gën a mooy li ñuy wax fonctionnement nga xam ne tey boo génne woon benn somme cinq cent mille war koo def fenn daa nekk cinq euh, deux cent cinquante mille wala deux dañ koy demee ay séminaire def ci ay étude jënd ci gasoil def ci ay indemnité de nangam la jëm ci destination ba tuuti lay doon loolu Touba ca kanam da cee mucc day delluwaat ci barkeel bi Touba ca kanam liggéey la boo xam ne bu ñu jëloon lu mel ne reboisement bi ñu ne li ci def matul 30 millions mooy jëmbatug garab bi ñu doon def boo xooloon li ci doomu aadama yi daj ci ay coono yoo xam ne jëmmi Serigne Touba ji lañ ciy dàkk dañ koo jaayante boo ko dajale woon xayma ci wàllu xaalis li ci Touba kanam di def dana mat 100 millions wala mu jege ko nga xam ne tey boo ko joxoon keneen kuy liggéeyee ci leneen bu la ko facturé day romb 100 millions loolu ngay xamee barkeelu liggéey te yàlla rek tax ak liggéeyu Serigne Touba loolu moo tax yëngu-yëngu Touba ca kanam yi matagul milliard loolu nag bu ma ko waxee danaan koo xam ne dane ne man kat seetaan naa vidéo boo xam ne sëñ Modou Mamour Gadiaga nee na dajale nañ 1 milliard 382 millions wala 1 milliard 380 et waaye un milliard trois cent quatre-vingt et quelques yooyu Touba a kanam dajale ba mu juddóog léegi ci ñetti at yi neuf cent treize millions lañ ci dépensé mu des quatre cent et quelques millions ci compte Touba ca kanam loolu kon moo tax li ñu dépensé gun bi Touba a kanam tàmbalee léegi matagul milliard bii liggéey bi nga xam ne nag nekk nañ ci ci jamono yi nga xam ne ba léegi bi may dugg ci baas bi nga xam ne dix heures euh, vingt deux heures ci guddi li ko tey jot bariwul maa ngi jokkoo ñi nga xam ne ñoo féete woon fële ca yoonu Daaru Rahmaan wa doon ngacc ci ndox ma fa nekk ngir mbeddum 30 moom mën a ubbeeku nga xam ne tey fa la ñu xëy ngir wax ne liggéey bi noppeeku ba fi mu ne nii ñoo ngi ci li ñu sëkk ci suuf li ñu ngacc ci ndox rek ci ci jafan yi li ñu ngacc ci ndox war naa mat lu tolloog ñeenti téeméer yi sare euh, citerne ñeenti téeméer yi citerne hydraulique yooyu ngacc nañ ko ci ndox ngir sekkaati mbedd yi li ñu sëkk app bi juróomi téeméeri camion la woon maa ngi jàpp ne sax romb nañ ko ndax ay camion 16 mètres la woon te liñ ci am ci ay 20 mètres dafa bari waaye pareel guñu ci liggéey bi ba mën a def bilan général bi man ko présenté ngir wax ne waajtaayu màggal gi jafe-jafe bii nga xam ne feeñ na ci ci ndoxu taw yi ak ndoxu naan bi war naa tax képp koo xam ne doxinu tuubaa ñor na la képp koo xam ne liggéeyu sëriñ bi ñor na la képp koo xam ne bëggug sëriñ bi ngay dàkk nga fexe nu ñu dajalee doole yi dajalee xalaat yi fexe ba bul màggal gi jàllee ñu songandoo Touba ca kanam ngir bu ko defee mbooleem jafe-jafe yi nga xam ne nemmiku nañ ko te barki démb dégg naa ko ci kilifa mu ne ginnaaw yoon wi tabax nañ jumaa joo xam ne def nañ ci lu ëpp ñaar fukki milliards song université boo xam ne def nañ ci ñi ngi fas yéene nañ cee des lu ëpp fanweeri milliards ak nangam boo amee jaaxle ci wàllu ndox wala ci leneen kenn du la ci dimbali mënal nga ko sa bopp ginnaaw wax nañ ne mënal nañ ko suñ bopp lan moo ci des lan moo tey ñu mën a takk too def ko wala ndax dañuy toog rek. di xaar bu réew ba màggal gi dee ñëw ñu def ay CRD def ay CDD dajaloo waxtaan bu màggal gi ñëwee ñu def évaluation suñu assainir fan la tali yi mu ne lépp baax na boo génnee ci tali yi jaar ci foo jaar mu toj ci jotaay bi dañ ne ko lépp baax na yow mi yor éclairage public noo def mu ne lamp yi dana tàkk bu ñu demee bañ ne suba la màggal lamp fay. bu ñu màggalee ba ca ginnaaw suba ga yi fay bu ñu ne yow mi yor ndox noo def mu ne ndox d indi nangam yi si terre danaa nangam nangam. boo dee dox di seetlu da nga gis oto yi boo laajtee ñu ne la ñi dañoo amul gaz wàll chauffeur bi daanaka nga xam ne évaluation yooyu ñu def yëpp boo ko xoolee ba ci biir lan la ci askan wi yëpp te mu wóor ñëpp ne Touba ca kanam buñ ko joxoon bopp jox ko liggéey bi loolu saafarawu ndax Touba ca kanam mooy mbooloo bi du kuréel goo xam ne nit ñi dañoo nekk ne mu nekk ne nit ñi ci boppam ñi nga xam ne ñooy dund jafe-jafe yi ñooñu ñooy waa Touba ca kanam nit nag defal boppam dana góorgóorlu ba defal ko boppam bokkut ak nag kuréel yoo ne dañuy nekk ne askan wi nekk ne gis pour dox seen diggante fa ñuy na ñuy jëfee na ñuy doxe ak fi askan wi waxe ni muy jëfee ni muy doxe dafa mel ne yàlla ak yi loolu xay na mooy indi soriante bi nga xam ne mooy am ban li ñu bëgg a saafara ko mën a saafara leer na ñëpp ne Touba Ca Kanam mooy liggéey bi ñoo ngi ciy woo ñëpp di sàkku ñëpp ñu ñëw ànd koog ñun tey fas yéene nag ñi nga xam ne ñoom la yàlla natoo ñu nekk ci bopp liggéey bi am nañ warteef ak warugar te loolu sëñ Abibulahi Mbàkke moo ci jiitu ak ñu mboolem ñi mu a liggéey bi te mooy fexe ba di laaj lañu man di ko def fu ñu xam li ñuy laaj ñëpp man nañ ko fiñ koy def ñu ngi góorgóorlu ba ñëpp di ko xam te ñëpp marché nañ seede ne ñi nekk ci bopp liggéeyu Touba Ca Kanam bi li fépp ñi ngi ciy ne te yow nañ ci yàgg nekk xel day wéy di ci dal ndax fu leer nañ ñi leen dugg te foofu mooy delluwaat ci liggéeyu sëriñ bi li ñu waajaloon ci wax bi gudd na jaxasoo na waaye kon loolu rek lañ doon indi ci ay leeral di wax ne daal bisu tay bii li sababoon woote gi mooy tàmbali exposition exposition rek ci tubaab ci tubaab mooy gaaral lan la ñuy gaaral mooy liggéey Touba ca kanam ndax leeral ba léegi nit day laaj Touba ca kanam yan projet la am Touba ku ci bëgg bokk fooy jaar léegi laaj bi yaa ngi kon jamono bu nekk dafay soxla ñuy leeral di leeral di leeral loolu moo indi exposition bii ñu def tey muy ak gaaral boo xam ne dañ koy gaaral lenn ci liggéey Touba ca kanam ndax lépp ñëwu ci. misaal mi ma ciy joxe rek mooy exposition bi wala yi Touba ca kanam defoon ci morgue bi gis leen ko ci benn misaal la bu ndaw ak yeneen ak yeneen euh, ngir wax ne lépp mënu si koo indi waaye li ëpp solo dinañ ko indi wan nit ñi ne ñaar téeméer yi ngeen di jox Touba ca kanam fii la dugg te loolu mooy tomb bi nga xam ne bi ci Touba ca kanam taxawee fu mu àgg moo ko fa àggale te mooy laaj nit ñi li ñu man di ko def fu ñu xam di sant ko gërëm ko jaajëfal ñëpp asalaamaaleykum wa